El Hadj Babacar Ndao maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, madame Awa Ba. alors ngay doctorant sa xel màcc lépp lu jëm ci wàllum aménagement touristique tey nag muy bés bi ñuy màggal wàllum tourisme na nan nga jàngatee tey journée bi rawatina importance am. waaw tey journée mondiale du tourisme dafa ne journée boo xamante ne bu ama am solo la. parce que day tax euh, ñëpp ñi nga xamante ne ay ay kii lañu day yëngatu ci activité touristique dañuy xam ne journée bi bés bu mag la te bés la boo xamante ne aussi thème bi nga xam moom la ñuy tey maanaam jàmm ak tourisme paix et day tax bépp destination touristique fépp nga xamante ne ñi fay dem ñooñu ñu koy gérer mooy autorité yi ak acteurs yi nga xamante ne dañuy yëngatu ci wàllu tourisme ñoom dinañu mën a xam ne ah ndekete tourisme daal comme ni ñu ko waxee dafa am solo ak ak ak sécurité tant que jàmm amul mënuñu wax mënuñu wax affaire ay tourisme parce que balaa ngay voyager di dem ci dëkk jàmbur dafay fekk nag yow da ngay xool est-ce que dëkk boobu jàmm am na fa parce que jàmm bu fa amul doo fa dem fu ñuy reyante wala muy am ay agression wala ay guerre kenn bëggu fa dem parce que tourisme mooy pour noppalu pour noppalu jëm hôtel wala auberge wala résidence nga dem foofu ànd ak sa njaboot wala ànd say xarit wala yow kese nga dallu dund leneen loo xamante ne da ngay euh, kii noppal sa esprit bu nekk da ngay liggéey nga dallu tuuti donc kon kon kon ku nga xamante ne touriste la soxlawul di dem foo xamante ne musiba dafay am ay xeex ay saagante ay dóorante donc kon tey journée bi nga xamante ne mooy journée mondiale du tourisme ñu siy wax paix jàmm ak ak tourisme paix et tourisme donc nag la journée boo xamante ne bu am ama am solo la te véritablement euh, ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax te jàpp nañ le euh, voilà année yi di ñëwut nañu gën a jëmbalaat ki waxaat ci journée tourisme mondiale du tourisme voilà développer ay yeneen thèmes yoo xamante ne dañoo am solo si comme thème ren bi. alors an nan la ñuy mën a def rek ba fexee ba relever ay euh, défis yi nga xamante ne moom la tourisme bi di woote. waaw défi tourisme Sénégal moom bëri na mais euh, li ci gën a am solo rek mooy. Euh, suñ territoire bi ñu def ci aménagement bu baax te aussi képp ki nga xamante ne sa xam-xam màcc na ci wàllu tourisme ñu xool fi nga mënee fi nga mën a waxee wala nga mën a defee foofu noonu parce que li am solo rek mooy Sénégal positionné am na ñoo xamante ne dañoo choisir ne ay acteurs touristiques am na ñoo xamante ne aussi ñoom ci njàng ak njàngale la ñu féete donc kon tey lu ñu am amal solo rek mooy pour ñu développer suñu tourisme pour ñu voilà euh, am nañu ay acteurs ci acteurs yooyu noonu mënoo wax acteur yi mukk te waxoo ministère du tourisme et de l'artisanat ñoom ñooy ñoom ñooy kilifa yi ci wàllu tourisme. am na aussi ASPT comme ni ñu koy waxee agence sénégalaise de promotion touristique am na aussi ko euh, euh, yooyu yëpp ay structures yoo xamante ne ñoom ñoo ngi jéem a góorgóorlu ga mais war gën a feeñ pour sénégalais yi gën a xam lan mooy tourisme mais aussi suñu promotion ñu renforcer ko à l'international te loolu dafa am solo ñun yow yaa ma gën a xam ne sénégalais yi ñu bëri si ñoom ñu ngi commencé jamono yi depuis Covid 19 ñu commencé di fréquenter yi mais xam nga ne comme que par exemple suñu destination dafa xaw a cher tuuti ñu bëri amuñu doole ba tax ñu mën a dem si ay hôtel wala ay yeneen di fa dallu donc pour le moment jamono juñ toll nii ñi nga xam ne ñoom ñooy feesal suñu hôtel yi ay gan lañu ay gan lañu suñu ministère ak suñu suñu SAPCO a ASPT ñoom seen seen promotion ñu gën ko yaatal ci àddina bi voilà ñu ñu ñu maintenir lu am ba pare. Hmm. tubaab dafay wax ne on tient vaut mieux que d'autres donc kon occidentaux yi ñoo gën a bëri suñu dëkk rawatina français yi donc nañu maintenir clientèle boobu noonu après ñu yaatal ñeneen ah voilà pour gën a xam ne Sénégal. mais est-ce fi mu toll nii ñoom xam nañ euh, réellement importance euh, solo su li nga xamante ne mooy euh, tourisme. non askan bi xam na ko xamu ko parce que tey boo xoolee tey xoolal Mbour xam nga boo waxee Mbour moom Petite Côte ngay wax te xoolal jamono ji barkaati démb rek lan moo fi amoon gis nga bato bi nga xam ne bi nga xam ne daan dem Espagne gars yi di di ñoo ci nekkoon ñu ñu jàppaat encore vingt sept personnes bi te ñooñu ñëpp fii la ñu jógee yi la ñu jógee que dañ fee dëkk wala dëkkuñu fi liggéey mais fii te nekk zone touristique boo xamante ne bi yëpp a xam euh, la station balnéaire de Saly Portudal donc kon tey bu nekkee dans les zones touristiques ñi nga xamante tourisme dafay créer ay emploi yu bëri yu emploi direct ak indirect te bu ñu xoolee zone touristique dafa bëri ay départ trop trop trop ay émigrants clandestins loolu déjà jàngat wala boog si tourisme bi dañu géré parce que même si sénégalais yi d'une part bu ñu xamee dayo bi tourisme am te acteurs yi pratiquement les investisseurs ay étrangers lañu xaalis bi gaa day dugg Sénégal mais lu bëri day delluwaat nit ki day ñëw jël agence de voyage agence de voyage boo xamante ne ay tubaab ñoo ko moom ay étranger ñoo ko moom compagnie aérienne bu muy jël wala wala oto koy jëli aéroport wala hôtel bu muy fanaan maanaam ay ay malheureusement am na vidéo vidéo bu ma gis sax boo ma gën a dawloo sama yaram bugguma tudd turu hôtel bi mais gis naa koo xamante ne réceptionniste la ndeysaan voilà <laughs> ndeysaan dafa dem xale bu xale bu ndaw koo xamante ne bu ci amee vingt huit ans ci lay yem mais dafa gaañu voilà parce que kon loolu donc jar na jàngat bu baax a baax a baax a baax ñu gën a conscientiser Sénégalais yi ci activité touristique mais aussi acteurs touristiques yi état war na leen jàppale bu baax a baax a baa a baax a baax pour ñu mën a proposer xale yi ay salaire yu baax ay contrat yu baax parce que xale yu bëri dañuy travailler ci dans les entreprises structurées hôtelières mais amuñu contrat dañuy ñëw di liggéey noonu rek ñu leen di fay amuñu contrat te bu ñu amul contrat ñu leen di fay ay cent mille soixante quinze mille day tax yow boo dajalee sa trois cent mille sa quatre cent mille boo gisee dara rek ah bàyyil ma daw dem pour génn ci kon il faut ñu sensibiliser population bi. mais ana pour sensibiliser. Mm-hmm. Mm-hmm. ana ban euh, a mën promotion bu ñuy def à l'étranger loolu yëpp baax na pour nit ñi ñëw Sénégal mais comme ni ma ko waxee même bu nit ñi ñëwee Sénégal te bénéfice yëpp day delluwaat fële ci bitim réew loolu amaluñu sens ñun lu ñu amal sens mooy par exemple yow man wala keneen ñu sénégalais yu bari ñu am ay entreprise fii ci Sénégal ay entreprise touristique ay hôtel ay auberge ay agence de voyage ay nangam ak nangam état jàppale bu baax a baax faciliter leen obtention de liste de la licence d'exploitation bu ñuy amee à la direction de la réglementation touristique bu ko defee sénégalais yooyu noonu ak étrangers yi ñu sàmm seen entreprise ñu mën a créer ay emploi proposer ay contrat yu normal proposer ay salaires yu normal convention collective bi nga xamante ne dafa propose dafa tax ne les salaires sont très faibles dans l'industrie touristique hôtelière et hôtelière excuse yooyu noonu ñu yokk ko tuuti bu ko defee ndaw bi bu nekkee fii di liggéey ci hôtel am na contrat am na salaire bu abordable dina mën a ne ah bàyyi bon bàyyi du ma dem ci géej bi mais sinon dañuy naan voilà hôtel yaa ngi fii fees fii dell résidence yaa ngi fii fees dell ay étranger ñoo leen moom bénéfice yi dañ koy yóbbuwaat ñun ñu fiy liggéey sax dañuy exploité nga gis jigéen ay serveuse ak ay serveur ay femme de chambre seen salaire matul sax cent mille francs wala góor ñi nga xam ne dañu nekk ay agent de sécurité wala ay réceptionniste seen salaire noonu donc kon tey ñooñu dañuy dem donc kon tey stratégie ñu war a def rek mooy ñu jàppale investisseurs nationaux yi convention collective du tourisme ñu xoolaat ko bu baax a baax pour améliorer euh, améliorer euh, salaire yi bu ko defee xale yi mën a toog. Mhm. voilà xale yi mën a toog. Mhm. ñu xam ne tourisme am na solo. alors euh, tourisme bi ci boppam ana lan lay indil nag koom-koomu réewu Sénégal. waaw tourisme de lu muy indi ci koom-koomu Sénégal xam nga ñu dañoo am problème mu chiffre mais dañoo wax ne produit intérieur brut bu Sénégal tourisme da ciy indi au moins sept virgule cinq pour cent. boo ko boo ko xaymaa boo ko xaymaa ci budget Sénégal pratiquement day day day jege cinq cent milliards xam lu bëri la. mais problème bi mooy loolu mooy chiffre yi nga xamante ne dañ koy dañ koy dégg nii mais problème bi mooy bu nekkee ne les mille trois cent quarante deux établissements d'hébergement touristique yu nekk Sénégal wa ak les quatre cent soixante seize agences de voyage yu nekk Sénégal lu ci bëri lu ci bëri bëri bëri ay étrangers ñoo leen moom mais koom-koom boobu nga xamante ne fii la waroon des day delluwaat parce que ay étrangers ñoo leen moom loolu moo tax aussi dañuy wax ne am na ay sénégalais yoo xamante ne am nañu ay entreprises touristiques hôtelières di recruter ay nit ñuy liggéey fii donc kon tey tourisme am na solo. parce que boo demee fii que ça soit à Saly Somone Ngaparou Cap Skirring ak foo mën a def ci Sénégal sénégalais ñu fay liggéey wax dëgg fa yàlla mais problème rek mooy bi le PIB na ci li ñu dégg 7,5 euh, pour cent ci chiffre yi nga xam moom la bi mooy xaalis boobu du def Sénégal en réalité donc moo tax tey apport bi lu am solo la mais war nañu ko gën a xoolaat comme li ma wax sànq il faut que sénégalais yi ñu am ay entreprise parce que sénégalais bu ñu amee entreprise touristique hôtelière ñu def sensibilisation ba ñu xam ne tourisme nekkul lu bon dañ koy encadrer mmh. bu ñu amee code du tourisme ñu encadrer ko

di wax pour yow li euh, lan moo waral situation boobile. waaw bu ñu waxee crise touristique de euh, mën nañu wax ne saisonnalité bi mooy problème saisonnalité déjà crise touristique la parce que tey euh, Sénégal xam nga ne depuis ba taw yu commencé ba léegi ñoo ngi ci nawet bi juillet août septembre ba ñu nekk ba léegi ba octobre mu ngi ñëw. ba novembre sax touristes yu bëri dañuy ñibbi seen dëkk moom duñu fa ñëw dañuy xool yeneen destination te loolu c'est problème lu ko waral normalement bu nekkoon ne tey saisonnalité boobu noonu amul kon kon tey euh, tout le temps Sénégal day xel di fees am ay gan ñu encadré ko tout temps donc kon crise du am ci côté saisonnalité parce que la saisonnalité déjà c'est une crise mais li ci gën a doy waar mooy agression yi nga xamante ne am na fi parce que agression yooyu je pense que comme ni ma ko waxee woon keroog je pense que le premier acteur touristique du Sénégal le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique parce que il faut que jàmm am Sénégal bu jàmm amee Sénégal Sénégal dëkk bu am jàmm la macha allah mais jamono ji euh, remarqué nañu ne ay agression xaw na bëri ci biir Sénégal rawatina ci biir Ndakaaru donc te loolu dafay tiital touristes yi rek di tiital bu baax a baax. Mm. touriste bu connecté wu rek gis ne ci jam nañ ko wala def nañ ko lii nangu nañ saakam day xaw a ragal day wax ne ah man ka dama liggéey toute na année bugg a dem dallu 15 jours wala 10 jours wala 3 semaines ci Sénégal ma dégg na foofu dañ fay jàmm nit wala nangam ak nangam dañuy ragal. donc loolu déjà c'est une crise le manque de sécurité bi nga xamante ne moo am ci suñu capital jamono jii nii nii nii donte autorité ñu ngi def jéego yu am solo mais nañ ko gën a kii kiiyat euh, vraiment gën cee taxawaat ñu xam kan mooy kan bu ko defee voilà dégâts yooyu dina may temps de temps fii euh, cas d'agression yi dina wàññi agression yi dina wàññeeku bu ko defee touristes yi dinañu bëgg a ñëw Sénégal parce que Sénégal dëkk bu neex la mhm. am nañu géej am nañu lépp les forêts les parcs réserves ak lu bëri bëri l'accueil ak ay plage lépp am na fi lépp am na fi lépp li nga xamante ne dañ koy war ci àddina bi rek ci wàllu tourisme am nañu géej soleil tout donc dañ dañ fiy bëgg a ñëw mhm. mais en tout cas Euh, pour ñu ñëw fi il faut que véritablement lépp li nga xamante ni mooy sécurité mooy la stabilité sécurité boobu noonu il faut touriste bi di ñëw psychologiquement. mu mu gëm ne Sénégal dëkk bu sûr la. alors euh, nan la ñu mën a def rek ngir mën a sukkali li nga xam te ne mooy secteur tourisme fii ci Sénégal. waaw secteur tourisme Sénégal pour ñu suqali ko li ci gën a euh, ki am solo rek mooy ñu jox ko ñi nga xamante ne xam nañ ko xam nañ ko bëgg nañ ko dund nañ ko parce que lu ñu mën a wax itam nit ki nga xamante ne da nga mën liggéey mag ñi dañuy wax ne balaa nga gën a mën a def sa liggéey bu baax a baax da nga koy xam ba pare bëgg ko li ngay def da nga xam nga bëgg ko xam nga yow journaliste nga man tey boo ma bëggoon indi plateau may kii def ay kii du ma def lu baax parce que loolu sama domaine jànguma ko xaw ko loolu problème ku nekk dafa am loo xam kon tey dañu war a jox euh, l'homme qu'il faut à la au niveau des services régionaux de tourisme ñu ne nekk ak lan lan la ñuy def ak lu amal ñoom ñooy kan ñu dem ci SAPCO ñu def loolu kan moo nekk SAPCO ñen ñoo fa nekk lan la ñuy def ak lu ñuy def ban njëriñ la am ASPT ñu def loolu ministère ñu def loolu donc ku nekk ñu jox gëddam ko defee ñun ñëpp ñu travailler ensemble te xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk bu ko defee promotion bi dañ ko mën a def à l'international parce que comme li ma la ko waxee sànq étranger ñoo gën a bëri fii kon tey étranger yi nga xam dañ fiy ñëw il faut ñu gën a renforcer aussi pour ñuy ñëw hmm. mais loolu promotion boobu nuñ koy defee dañ koy defee ci wolof day koy defee ak ci anglais ak ci espagnol yooyu yëpp langue yooyu yëpp sénégalais ñoo ngi koy wax donc je pense qu'il faut ñu renforcer sécurité bi renforcer jàng ñi nga xamante ne jàng nañu ay langue xam ko ñu impliqué leen ci affaire yi Sénégal defoon nañu am lu am solo Euh, mënoo xam gendarme ba léegi dañuy fonctionner mais amoon nañu ay bureau de promotion boo demoon ni boo demoon Paris man ba mu fay amoon na le bureau de promotion touristique dafa am solo bureau am solo mu am Paris am am aussi Madrid am Milan Francfort ak New York loolu yëpp amoon na fi xaw ma ndax léegi ñu ngi comme auparavant mais yooyu yëpp lu am solo la ba nga xamante ne foofu noonu rek dañu mën a def promotion destination Sénégal en plus de li ñu fiy def. donc ci gàttal daal voilà pour ñu gën a suqali Sénégal euh, activité touristique il faut ñu renforcer promotion voilà ñi nga xamante ne aussi dañuy yëngatu ci fànn bi ñu dugal leen ku nekk def li nga mën rek voilà bu ko defee la synergie c'est-à-dire ñu boolee suñu doolee wala dinañu mën a véritablement xam lan mooy faay yi lan moo ñu manqué mooy d'abord c'est quoi suñu faay yi mooy lu ñu manqué mooy suñu saisonnalité ñu fexe mmh. éradiquer ko bu ko defee ku nekk voilà di liggéey di rendre compte lu la neex mën nga ko def hmm. les SRT dañu war a rendre compte SAPCO ASPT ministère ñëpp di rendre compte ñu xam ne fii la ñu jóge fii la jëm bu ko defee ñun ñëpp ñu booloondoo liggéeyandoo jaay Sénégal wala am suñu code loolu nga xamante ne touriste bu ñëw Sénégal ne ko lu la neex nga def am na ay règles yooyu respecté wala yoon dal sa kaw donc yooyu bu ñu ko defee dañu mën développer ce qu'on appelle le tourisme durable le tourisme responsable durable nit ñi dinañ fi ñëw seen ñëw bi amoon ñu amal amal Sénégal solo duñu yàq suñu culture suñu aada ak cosaan te dina permettre développement économique aussi suñu environnement kenn du ko dégradé voilà mooy tourisme durable loolu moom la bëgg te jàpp naa ne autorités yi ñu fi nekk loolu la bëgg te ensemble yaakaar naa loolu dina mën a am. El Hadj Babacar jërëjëf may fàttali rek ne sa xel dafa màcc ci lépp lu jëm ci wàllum aménagement touristique ñu ngi lay jaajëfal bu Ba maa ngi bu baax a baax bi